Jazbul murid au service de mam Cheikh Ibrahima Fall. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu bokk yi ci turu cheikh rafal ji tok di serigne amdou Fall mu serigne Modou Mbenda. ñi ñaan yalla sunu borom yagal ko fi lol te wéral ko ba liggéey bi nga xam mom la yor mu yobbu ko fo xam kawé na njortam. te ànd koog taalibe yëpp sëriñ bi waxoon nu jottalil ko ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci bokk yi ak ci taalibe yi naa li ci jiitu rek muy ab nuyoo ak ay cant ak ay ngërëm mu jëm si njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall di feddali ay cantam ak i ngërëmam ci jàpp gi ak liggéey bi ci li nu weesu lépp ak fii nu waaye di cantit mbooleem ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nga xam ne ñoom seen yaakaar génnut maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ànd ak moom ndigal yi nga xam ne waxtu wu ne mu ngi bàyyikoo ci sëñ Touba di rot ci kër maam Cheikh ra sëriñ bi wax ne mi ngi leen di sant bu baax ci li ñu weesu lépp nag nga xam ne lépp rafet na lépp jub na ñu ko sëriñ bi bëggee woon lépp amee amee na ko ni di leen sant ci fii nu toll xam ne waxtu wu ne kenn ku ne yaa ngi li sag laxasaay def lenn rek muy sa yitte mooy teewlu ndigalu sëriñ bi te am pas-pasub jëfe ko na ko sëriñ bi bëggee mu leen di ñaanal sama boroom defal leen kattan akuk wér sama borom defal leen ay xéewal ba lu sëriñ bi digle rek nu man koo jëfee na ko sëriñ bi bëggee euh, li nga xam ne nag moom la ñu doon jottali tey jii ab ab euh, gannaaw cant yi mooy ab soññee nga xam ne liggéey bi moom ni mu ko waxee moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi wax na ni moom liggéeyal sëriñ bi rek moo ko fi bay kon nag waxtu wu ne li mu nuy soññi mooy ñu ñu fas yéene nekk ci ndigali sëriñ bi ndigal lu rot rek ñu jàll ci leneen ndigal kenn ku ne xam na ni koor gii ñu génn muy liggéey bu màgg boo xam ne bii ñépp ñëwoon nañ si ko ànd ak moom liggéey bi ñu yóbbu ko foo xam ne fii mu mosu fa àgg ndax doxeenu Seera Faal moo mel noonu liggéeyub Seera Faal it moo mel noonu tey Cheikh Rafal ju ne day gàcceel démbam ndax li nuy sàkku mooy waxtu wu nu jëfee liñ say sàkku mooy jëf ji sëriñ bi nangul nu ko waaye la nuy ñaan mooy la say dolli ko mu yokk bu baax a baax kenn ku ne xam na ni liggéey bii ñu génn muy liggéey koor gi yokk na bu baax a baax te fépp fu mu àgg rekk na ma ko waxee taalibe yi rek ko fa àggale ñoom rek ñoo taxaw tem jël def li nu man ak la nu mënut ngir sëriñ bi am li mu bëgg si liggéey bi mu leen di sant bu baax si taxaway bi nga xamne am nañ ko si liggey bobu di santit si taxaway bi nga xamne am nañ ko si liggey bi nu genn te batay ñi ngi si muy ndigal li ko Cheikh Modou Mountakha joxon muy si walu corniche bi ak ci marché Ocass ak ci bir Touba muy lepp luy sam war moy dekk bi te mu and ko njabatu Cheikh Rafal gep taxaway bi nu ci am gis nako te mi ngi ci sant bu baax mi ngi sàkkoon nak ñepp nak gëna jaaju rek te xam li sëriñ bi bëgg mom faawu day am kon nañ def yitté ba ni ko ba bokk amal bu fekkee mënno amal lepp nu bok ci ñu amal li nu dëgmal nak waral jotaay bi muy liggéey bu mag bi nga xam ne nañ ko ndax du lu yes muy liggéey tabaski ñu ñoo fi ne mu ne tollu nañ ci waxtu soñé ko sëriñ bi waxon ni nañ ko soñé jëk nak ñi nga xam ne la bokal maam Cheikh ibrahim Fall di jëwriñ yi nga ñoo nekk ci wetam nekk ci kanamam nekk ci gannaawam ànd ak moom liggéey bi di njabootug Cheikh Rafal gi sëriñ bi nee na gannaaw bi mu leen santee mi ngi leen di soññi ci liggéey bii taxawaay bu nu ci amoon daaw ak la ko jiitu ñu fexe ba taxawaay boobee nu yokk ko ba mu ràññiku bu baax a baax ndax am na yéene day lépp lu nu jëfoon daaw suñu jëfi ren jii dana gàcceel jëf joojee kon mi ngi leen ci soññ bu baax a baax euh, yéen ñi nga xam ne yéenay jëwriñ yi nekk ci kanamu njaboot gi waaye di soññ nag taalibe yi ak fu nu mën a ne te xam ne lépp lu fi nekk rek taalibe yee ko fi def mu ngi soññ taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne def yitte si fexe ba liggéey bii nuy tax taxawu di ko yóot sëñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha muy tabaski yi kenn ku ne def si la nga man ak la nga mënut bépp talibé mi ngi sant képp ku dib talibé ta ci sa yaakar gennut maam Cheikh Ibrahima Fall nga dal di taxaw tem si fexé ba mana lo meuna am ci taxaway si walu tebeski yi nga taxaw si te mu ñew si waxtu wi nga xamné mom lañ ko wo ngir na man ko jébal ki nga xamné motax mu jog di Cheikh Modou Mountakha di ñaan nak yalla sama borom defal leen katan ak ki xéewal ba ngeen man ko sëriñ bi di soñé wa bitim réew mbolem ñi nga xamné ñoy ñooy murid ya fofa te waxtu wu ne ndigal lu jóg ñu am si taxawaay bu ko lool li sëriñ bi bëgg lépp ñu bokk si ña nga xam ne ñoo koy amal sëriñ baa ngi leen di soññi yéen ñi nekk bitim réew muy Europe muy Amérique muy Asie muy muy muy Afrique fépp fu fi ab daayira ne fépp fu fi fédération ne pépp fu fi kuréel goo xam ne gi dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh nekk te ñu am yaakaar si ne war na noo mën a jëfal Cheikh Ibra si liggéey bii sëriñ baa ngi leen di soññi si tabaski yi ñu xam ne wàccul kenn kenn ku mu si mën a doon nee na lépp loo si man nga def ko kon loola nun ñëpp déglu nañ ko li si dolli ko mooy képp koo xamante ni kii yaa ngi am looy jëf na ñëw si sëriñ bi ndax moom day sàkk na ay ndaw yoo xam ne ña nga fa wetam di saytu liggéey bi lepp lu fi exi inshallah danañ ko tek ci loxom ñu jébbal ko ki nga xam moy tax mu jog gannaaw bañ ko jaaralee si jëwri ñi ya nga xam ñom la tan jital leen ci liggéey bi kon sëriñ baangi soñi soññ ñëpp fu fi am murit nek dal bu mu ne bu mu japp ni genn na ci ndigal li na xam bi liggéey bi fonk na ko lool te jàpp na ko lool ndax lépp lu mu si jëfoon daaw dafa am yéene yi jëf si loo xamante ni lu kawe loola la lu ràññiku lool kon nag kenn ku ne na nga fexe ba li nga xam ne moom nga digeeg moom mooy lu ñu la digal nga def ko sëriñ bi digle na képp ko di taalibe mu ngi lay soññ si liggéeyub tabaski yi nga xam ne moom la ñu dëgmal di ñaan nag yàlla sunu borom. sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafaal mi mu doon kenn ku ne sa defal la ak ngatandu xéewal yu ne gàññ yoo xam ne li sëriñ bi bëgg da ci def lu kawe sa njort mu ngi sant bu baax tey gërëm bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ak feex di wax ñuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin amin amin amin amin faal amin amin amin faal Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall